këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu nañ piis ak reket bi. waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay boole. sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gaamu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. duubal na fi kër yëpp ah. wax ñàkk a wax ak yow rek si actualité lamb parce que Reug Reug Sa Thiès yaakaar naa ne bokk na ci li gën a andi coow te ñaari mbër yëpp yaakaar naa ne am na loo jot xam si ñoom muy Reug Reug même bu ngeen bokkul drapeau bu ngeen bëriwul tamit gis nga ay yoon ya bëri ngeen final voilà voilà bu ñu jógee foofu tamit yaakaar naa Sa Thiès tamit xale la waaye champion la marqué ay preuve am ci làmb combat boobu moo andi coow li yëpp sa gis bi daal biri pib bu ko deful na neex mais birib pib bi nag laa cee yooyu moom première depart bi kay moteur bi ba muy takk boo xewlee da ngay naan ne lan moo xew ci làmb ji cekap ku mën a doon nag ndax kat sa Sa Thiès xam nga ko. Sa Thiès premier départ balaa ngay xam fekk jég na la baare ci yoonam mais daa bari lu mu ciy def erreur dafa bari lu mu ciy def erreur de mais bu xafulee ci lay mbokk nga dem nga xalaat ko fële. kon yaakaar ne moo la waaw yooyu nag du àdduna affaire moom da ngay naxante ba am fu baax ndax nag di waaj ay weer sa jabar di lay lekk defal laa xak <laughs> nga ciy deseeru dem lambu ja bugg koo def comme Adama Diouf ne ko bugg koo jeexal léegi loolu moom dafa xaw a soof gars yi moom nañ ko koos combat bi dafa jar Père Gaston daf ci fay xaar bëri coach bi moom saa waay jamante gauche droite bi non wax dëgg bu ñu ko defaloon moom saa waay non man dinaa organiser sabar sax xam naa dina neex non adduna ñëwaat sax mën na ñàkk a nekk mais au moins deux minutes yoo xam ne loxo yi dinañ weesaloo yooyu moom bu ñu la ko defaloon Père Gaston buy pare kuy daanu ak koy daan dañ la tegal combat mais fii daal ñëw asaaloo lambu ji gis naa kii di ko ci ñaax nag nu mu tudd euh, nu mu tudd euh, reg gis naa ma ko neex ñoom ñaar ba mën a pone nag kaar macha allah mais Reug Reug moom wax dëgg fa la kenn du moom Reug Reug Reug Reug mu daane woon moom mu amul ci monde bi ay nii ba xejal la mel ni koy xejale pajaar sol la naax nga dugg ko mu door la nga war ko nombo façon lu ne nag ci àdduna noo boo buggee dégg nag nag saaceen nga bañ maa mer nag sama waay nga bu ñu tasee danga may jox cer mais Reug Reug moom kele yu ma gis muy def ci làmb non gisuma ko koy def nañ waxante dëgg nag sax waay nag gis nga fii nag wax bu waxee dëgg dañu naa fekk nga mais rek rek lu ma gis ci àdduna bëreto bi sax de xaw naa ko ñàkk a gis mais bëri simple lu ma gis rek deg def ci ay façon kele <laughs> wax dëgg fa la gisuma ko mbër bu ko def sax non gisuma ko nañ waxante dëgg rek nag keroog yaakaar naa ne gis nga tamit journal bi mu bindee mu ne rëg rek ak agent wala ñum ñi sax nan papam Leydi seen dañu am problème bi ko déggee yow en tant que acteur lamb lan la def. non léegi j'ai agréé non gaw ma ne mën nañu am problème. journal bi na ko keroog. non xam nga yéen journal si nag samay xarit ñeen mais parfois da ngeen lu yëngal réew mi rek bëgg nekk bu neex rek ngeen dugal loo xam ne saa waaye ay wax rek yooyu yëpp ngeen ko war a ba jéem fa la jël information rek ci tabal ko ci. dinaa gisante ak Seydou daal mu daafal man itam ak kii. loolu dëgg la loolu ah waaw mais loolu nag gaw ma ko mën naa ne nag mais gaw ma ko man. ndax lay Iseen moom ak Reug Reug nii la nii rek rek wax na leen ne yaay moo ko ko denkalayti loolu moom gaw ma ko nag wax dëgg fa bu amee itam yàlla ma ci yàlla musal ndax lu mel noonu moom day yàqal nit lu baree baree baree baree bare man am na lu may mel ak am na loo xam ne war na am sax damay bàyyi ba guddi ma foog la raam jéeglu la pour ñu àndaat ndax lu pe lu weesu moo indi loolu Sénégal nag dafa taamu comme li ma la wax rek man man man man mi fi ci réew mi fii damay xamante nit de mu may defal ba defaratuma mais fu ma di wax tu la te fot na mu na ñeenti at defaloo ma dara barke Sidina Mohamed damay ànd ak ak nit mun mut quatre ans wala cinq ans wala six ans wala ay ay combat te te doo ma jàppale mais comme mosoon nga ma di ma defal xëy na sa loxo moo sa ginnaaw wala itam xëy na affaire départ bi yokku na dama lay xel di sant ni ma la daan sante parce que loolu mooy adduna ku la defalul tey mosoon na di defal nit nag am dafa fooy tolloog moom même boo xat-xat amee ci biir mbooloo war ngaa mun a raam mun ngaa mun a raam ba biir néegam nga foog ko ndànka nekko ko baal ma jéegal ma daa am sama benn xarit fan yii dama ko doon woo mais jotuma ko ni ko dama yàlla numéro yi mu ma rek ma appétaat ci kawam ma ne est-ce que juumoo ma ne juum ma ma xool vérifier numéro bi xool xool xool ndekk ceeb tur yi même tur la numéro yi benn chiffre lañ utante hee ana jabar la ma ne est-ce que sama xarit ma doon woo di aalu wax dëgg maa def erreur ma woo ko ci numéro mu wuyu ma ma ne dama laa bëgg a yéeglu nag woo nga am barke di mu may pétage kaw ne maa jaaw sa numéro bi de mën naa la am fay numéro nag numéro jàmbur la bu ci woote benn numéro lañ lañ kii maa ngi lay baalu mu ne cey Adama lii nga àddu sama kaw barke dem bu yëpp am na ku mu nekkoon du ko wax ne ma ne ah, dama lay jéeglu de dama lay jéeglu de ndax ba nga may soxla da may woo rek ma wuyu la jàpp naa nag woo naa la ñaari yoon ñetti yoon nekkul benn fan wuyu woo loolu mooy adduna gis nga fii nit da ngeen di mu ñalante. waaw ànd bu rafet boo fa gis. mu ñalante sa jab may ma tuuti ma wax la sa yaay bi la jur sax am na bés mu def loolu naqari wala nga def ko boo ko mu ñalul du ngeen nekk. jabar ji nga takkee kër ndeyam ak kër baayam am na lu mu la def boo ko mu ñalul du ngeen mos a nekk te gis nga ànd bu xasee am. na ngeen fexe mu na ngeen fexe nu ngeen ci góorgóorloo nit mën ta ànd rek yo même kii bokk jikko bokk bëgg-bëgg mën nañoo bokko bokko mooy seen jikko yi moom il faut mu am lu mu wute il faut mu am ku tane keneen te nag yàlla yàlla de boo bu fekkee seen ànd dafa jaxasoo du lijjante fu ngeen avancé day lijjante ànd ba pare donc ñaari poste yi mënu ko boole di mënu mënu xëy ci ci ci lu leen boole bu bu ko xëy ci leen avancé woo ah benn kilifa moom ko wax de day xëy leen àndaloo ba pare bu paree nag bu doog a lijjante du ngeen avancé bu fekkee àndu leen nag. asaktu day xëy ci leen ànd rek avancement bi di raw ngeen di perte te gis nga ànd du caaxaan gis nga nit boo ànd rek nit bu la tooñee wax ko li nga ko war a wax mais jaru sax nga dem de xam nga histoire léegi nag lan moo ko gën a yokk yow da ngay ànd ak ki nga àndal nii ngeen am problème léegi balaa ngay jóge fi nga jël téléphone waaye diw day déconné kii du tus woo sax keneen woo sax keneen woo sax keneen woo sax keneen kooku woo kee kee woo kale kale woo kale hop jaxasa jaxasoo bi day kii diw def la yab Eh, kooku bu la defalee tuuti mos nga ko defal tuuti mais bu fekkee nag teey ngeen am ci kenn wala ñaar yi ngeen ko wax te ñu am coloré dañ leen di defar mais nit ci léegi ñoo bëggatul defaru da gis ko am ne am na góom fii gis góomu jàmbur fii ñoppati moom lay xel di diggante loolu moo tax mënuñu affaire yow xam nga ni may wax baax baax baax loolu moo suñ problème la fii Sénégal fii loolu mooy suñ problème fii wax lu bon léegi moo gën moo tax ni ngeen mel nii ak ñoom Lamine yàlla ngeen continuer ko parce que am na ñoo xam ne soxlawuñu len lu ñaaw rek moo leen gënal lu ne ci àdduna te nit yi nag ci bu am ñoo bugg a yees nag ñu man ni man ndax boo tappe woon léegi gis loo xam ne waxtaan lu xam ne jàmm salaam lay indi doo ko tappe mais boo tappee léegi gis ku yor silipu nen <laughs> loo nga seetaan ko moo lay gën a yeneen yi waaw ku wax lu bon nga nga di ko di ko wax loolu moo nu gënal te jam nag moo gën lu ne gis nga ni ma toll nii bu ñu tesoon maag waa jale ko te koo ñam ma dóor ko ba mu ne nem bu may génn fii ku ne waa ji ma ne eh, est-ce que ne ko mën la ñu xool moo tax ay amul njëriñ ñu ne ay baaxu ci muus ba deretu muus baaxu ci ker mais cey muus ba muus bi nga xam ne moo dakate <laughs> naka la def nag léegi bu fekkee ne deret bu tuura fi ñu umu dañu umu rek de mais muus bi nag moo tax réew mi jàmm moo ci war a nekk ñu mu ñalante bu fekkee mu ñalante wala mënuñoo way mënuñoo woy man di gaaw maa mer de soo mer nag moom neexul mais nit mën na ma di ma def ma lay muñal waaw nit ku nit nag sakul bu am mais yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñu baax la ñu muñ la ñu mais lu werte woon man fi ma nekk nii damaa découragé du ma découragé mooy benn mbir suma fan si kële Mbayang Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax ci la ñuy xëy mën naa tegal audio yi dañ maa laaj laaj combat koo laaj maa laaj combat barke araxulaana chaque jour ba ci station bala démb parce que tu vois nit taxaw na su mu ne Adama lan moo tax mënoo am komba mais li ma la wax rek la rek gis nga ma doon raak raak bi ko lay ko lay def. raak bi ngay def non raak bi lay def parce que gars yi bëgguñu bëre. dama jàngi box ah, eh, kay mokkal naa ko <laughs> yor naa lu bari li ma yor non <laughs> li ma yor kay. jamono yi ñu nekk nii. est-ce que formation weesu weesu na non loolu sax. formation bi dee na yooyu sax boo ko tuddee sax kii na mais li ma yor moom mooy yi nekk nii non xam nga mën a door gën a mën a mooy toog daq mën a mooy toob are moo daq waaye yow boo waxee ak koo xam ne jaas yi la yor ci jaas bi rek la wekk mbiram ndax moom la yaakaar nii lay def xoolal pour góor la jaas yi rek la yaakaar mooy ba koo xam ne nag dafa def la seer yor na ay lu ne tànkay mën na ñëw ñëw ak kii mën na ñëw ak lu ne mën naa ñëw jaru jaru yooyu yëpp jaruñu ko wax mais man li ma yor ni xam naa góor pour mu dóoral te fii mu dóor ma waaw lu nag waaw. Balla Gaye Balla Gaye Boy Niang fa laay tëjee. non Balla Gaye nag mooy donkaase bi loolu boo ci wax ba suba du jeex ndax mbir bi dafa am lu ci nekk ku ne dama lay jox say conseil gis nga ku may gën a conseil nag Boy Niang la te daa mel ni am na ko wax ci suuf loolu nag jaayul combat bi sax ndax boo gisee indi na teg te kaaral ak naxante. mag nag boo ko buggee <laughs> defaral affaire dëgg doo ko doo ko woon doo ko woon yéen yi waaw doo ko woon yéen yi. moo tax boo ko bëggee ren doo ko woon paaka. doo mais Balla Gaye itam ba nu mu tudd Balla Gaye ni mu tolloo noo gi la war a toll xadar yi mu doon indi mënatu ko di indi di ko booy yi ndax bu dee wax ju wax ju firgel na ma yàlla baal booyee ko koy daqe. léegi moom luy luy joué ci moom day joué naan kii sama rak la waruma yab ci wax combat amul loole boo jëlee avant nit ki avant ay nawle ngeen de bu la mujj a ngeen doog a tàggoo loolu ay tappale la ah. kii sama rakk ak nangam amul man ku ma amal combat nii amalu may wax de bu fekkee mag naa la dix ans yi su ma yoon de morom la ñu da ngay ngembu ma ngembu ba combat bi passé Balla loolu la sooraale ak teg tekaaral dafa bugg a def nii ga yi naan nekku ci dara ah gars yi yéen journaliste loolu ngeen waxoon di Balla Gaye wóolu bu am nangam ak nangam. nga entraîné léegi xam nga yéen yow yéen a gën a bëri wax ci réew mi. nangam ak nangam mais boo ko gisee yor na entraînement mais Boy Niang bu amee lu muy sóoraal ci Balla Gaye na ba ah. ca kon de kon de du a nekk wàllu saareen du am tus ci lamb ji bu fekkente ne am non eh, amul calcul kay amul ne bëre balaa ngay mën a bëre nga jàpp bu baax nga doog a bëre mais bu fekkente ne am na lu muy ragal tuuti ci Balla Gaye na xam ne du nekk roi de saareen moromam est-ce que am na borom Boy Niang bu toll nii di bëre ak ñoom Balla Gaye ak ñoom Tapha Tine ce que am na a ah, ki nekk Pikine xanaa xanaa ki nekk Pikine de bëre woon Ama Baldé de bëre woon ak kale mais bu weesoo loolu moment ñu nekk nii ci cour de gala bi mbonomam bu toll nii di bëre cour de gala yi ah boo gisee nga wax ma ko moo tax bu mu nekk te nag mu ngi ciy commencé échec nit ki nag boo ko waxee dëgg itam wax ko dëgg mu ngi commencé échec de bëre nag kale effectivement bëre rek boo ñaar suur boobu laa doon bëre waaw yooyu échec bii nag dafa war at me nag bu at men moom saa waay ñoom saa bu daanoo dem ci kawam lañ dem ne bu amul affaire bi amul naxante de waaw loolu kay jar sax wax moom kay daan rek génni comme comme Sénégal kay lu mu doon joué keroog door rek <laughs> moom foofu la toll ah. waaw door rek it faut mu door rek waaw Sénégal muy bëre keroog bu amee ni 4 points lay am wala noonu. non bi mujj kay bu buñ ko dóoroon moom de. ah bale wax moom yi de. mooy beneen ba. am na boo waaw. door rek waaw qualifié huitième bi daal. door rek door rek lu mën a xew door rek. moo tax gars yi dañoo bàyyi kaay sax fekki bal foofu la toll nag ak Balla Gaye loo bëgg a wax waxu jàmbur Boucar wax lañ ci man dama waram combat daa bokk ci réew mi. Alain mu ngi dégg. ah non Alain sama xarit la kooku. moom mu ngi dégg yoroon wax dëgg fa la tegal ma ko ñooñu laa xam ne wax dëgg fa la yàgg naa di borel combat ndax Pierre Gaston maa ngi koy gërëm moom ma dugg ci bëri doon mais ñoom ale waat naa ci yàlla ne mosuma ama nekk promoteur yoo xam ne dañ maa gën a jege noonu gën maa di fereer noonu comme maak ñoom amul. wuli nee na ale moo ko jaay parce que nee na ale moo la doon wutal gala. moom day wax sax moom day wax moom c'est que wuli moom itam lu mu moo xamul yoon bu mu jaaroon sax baax na mais yoon bu mu jaar ni moom saa bu buggee woo ma directement ma wax ko loo xam ne du tegee ko ci bu mu nekk ci ay caaxaan la nekk di caaxaan yi du ko dikkee dara de na dem boole daanu nu doon daanu bi bu ñu daan eh, xanaa yàlla yàlla àndul ak man. mais daanu yi ko taal sax. aywa waaye mais léegi nag moom na dem nag way caaxaan yi yi mu nekk nii ay tappale la wala nekkoo ci tus man maa la ko man mbaru askan bi Adama Diouf nekkoo ci dara kay yow kay ci tappale nga bëgg a woy nii te tappale nag saa waay tuuti doy na ci de. patron nag day xoj ak yow mboor ko bagage. moom sax moom moo ngi États-Unis états man de xam nga ne man promotion laay doxal <laughs> man moom promotion laay doxal man bu ñëwee ñu bëre man bëre rek moom a ñor bëre naa bëre man naa bëre. li jëlee roi de Sarène ba fii ah. ku ma ne maa ngi nii maa ngi nii taxaw man mosuma delloo avance mosul am. mosoo delloo avance non non mënul ma delloo avance alaaji bay rek lañ ma doon jox ma ne hé Père Max kooku nag du ma naatoo nga am mu ma avance bi jël naa ko bëre nga bëre bëre bu ko bëre suma production maa ngi ko solee euh, fale ñoom lak dëgër fu ñu doon nekkee moni monument de renaissance foofu laa solee ci biir oto bi mbuur la ma fekk drapeau chef de mu ne ma xoolal encaissé naa xaalis bi bugg a bëre bëre buggoo bëre bëre Max Mbargane père Max ma koy baax a baax di ko félicité ci combat si tamit di ko félicité bu baax a baax a baax mais daal lu werte woor Adama Diouf daal sonn na man wax dëgg faal dama ma a bëre Calcio ngi fi daal. Ah, non waaw mais Calcio acca ah, ah, mais moom est-ce que na ma man. non Calcio du ragal Calcio du ragal du ragal mais kan mooy ragal yooyu tam nag yow si lañ jóge di wala <laughs> yow xam nga fu ñu jóge son yoon daanaka ci dara. ñoom si <laughs> golo ragal bon nga gis mbor di ma dàq fii <laughs> dañoo am lu ñuy ragal ñu ne amuñu ti lu ñuy ragal di amul. waa dañu du dugg ci caaxaan nag ndax réew mi nag boo buggee nekk wi bugg a wéy boo dugg ci caaxaan ak tapale mm-hmm. waaw boo déggoon ne Adama xeex na fale xëy na mën nañ ko tooñ mu xeex mais adama sàcc na fale agresseur na fale def na nangam fale ku ci nekk da nga ñaan yàlla sax xëy na nit ku ne rek ak lu yàlla defal kon nag war dafay jaaxal lool mais duñ ragal de heure bu ñu dox nag nag. am na solo maa ngi lay bëgg. waaw maa ngi lay bëgg. am nag sama waa sama waaju ma bëgg nga gërëmal ma. muy dadi deux roues. benn benn tali la nekk. en tout cas daal bu dee defar moto. moo si mën. jaay moto tamit. moto yu venant lay jaay. ah dadi deux roues nag saa waay kon nag naa ñëw ba sa placement Boucar Lutte TV nag vraiment kontaan naa ci ndax nit ki nag lu ñu wax rek gis nga Boucar bu ñu gërëm xam nga émission bi ñaata minutes la yàgg na de mais ci gërëm laa tolu nag te xam naa ne gërëm bi du weesu deux minutes dadi maa ngi lay gërëm ndax ku nekk waayu waayu sa waay la sa waay la loo wut te amoo ko sa waay ko amul kontaan naa ci yow di gërëm nag borom ñaaxar. maam Waly Sène maam Waly Sène nekk nga xam ne yow yaa tax ma xam ko mais ku baax la ku ma nëmeeku la. Sakho détail ñibsi na. waaw bu ñibsee yal na mu ñibsee ak jàmm na di gërëm nag père Ablaye Ndour bu baax a baax a baax maire Grand Yoff bi ma joob ma koy gërëm bu baax a baax di ko sant Ablaye Diop moom fils góorgóorlu production François Ndour suma frigo boo ubbee ne ay jën ñoo ci nekk moo ma ko indi. di gërëm faax parce que dafa am benn groupe ma bokk muy groupe sum góor production te ñuy dund bu baax a baax a baax a baax konte moo doon ngente ne mu doom bi yal na nekk doom ju barke. di gërëm bu Euh, meeru Thiaré parce que moom la àndaloon ci élection yi mu nekk sama patron nekk sama lépp di gërëm jabaram nag di gërëm yaayam Sofi di gërëm bu baax a baax ay doomam di gërëm ay rakam Babacar moo doon ngeen dembu rakam maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal doom bi dana la nekk doom ju barke di ko gërëm bu baax a baax ndax dama taxaw gëri taxaw ba bëccëg honorable Matar Diop mon ami mu ngi buuxante assemblée te marché marché balaa neex am buuxante nag saa waay marché balaa neex am buuxante ci njarte boobu mu ngi buuxante nag laa la wax marché am buuxante nag yow xam nga li ma wax bu baax marché bu amul buuxante ku waxaale xaj te mu ngi fay buuxante ma koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal di gërëm bu baax Souleymane Dioral di gërëm bu baax gis nga keroog moom lañ tuddee gis nga am nit yoo xam ne ñooy jàppal nit yi xam nga fii nii Abdou waxal moo doon tegg keroog gis nga Lewis ñëw na keroog jox ko 500000 te ci loolu la nekkee sama ngel ba dafa am nit yu baax dañoo nekk fii sa waa ji rek caare. Badara Ndiaye Badara Ndiaye. maire de Thiaré maire de Thiaré xam nga naka de bourse nañ. régisseur des bourses. voilà. di beral loxo bu baax a baax Ba Faye suma xarit. Pierre Ipen yow xam nga ko baax a baax. bala sama lépp la. maire Diouroup bi c'est mon ami. mois de mai maa ngi waaj loo xam ne bu bu takkee fii. Mm. sama diggante ci <laughs> 14 mai maa ko war a teg la bu te dinaa fi du ma wax akum nag bul yàq sama benn promotion dinaa fi indi loo xam ne. ñiy tegg lambu fii ñiy tegg lambu fi yow itam nag lu ma nekk yaa ngi ca di mag yow bokk mbuur docteur Demba Gueye xam nga ko baax a baax doon finalu nag meeru meeru meeru kii meeru Mbella Kadiaw téeméeri fois ak nanga moo ko xañ kooku xañu ko dafa am nu di gërëm bu baax a baax di nuyu sama mag ma ak nuyu waa Seeraar Jame di nuyu ñëpp ñoom bu ma limee damay juum mais nag damay gërëm ñëpp di gërëm waa ñëw dan bu baax a baax fi ma dëkk samay jabar ak samay mag ñoom ngoo daba ñoom dolte ñoom jumakoor fàttewuma kenn gërëm bi yàgg na mais Boucar dafa am mbir nu mu nu mu demee dafa am ñoo xam ne Boucar dañoo jàppale bu baax a baax a baax xam nga ne ku toog ñaata borewoo mm-hmm. boo amun ministre sport maa ngi koy gërëm bu baax xam nga boo ko gërëmee tey gars yi naa dafay doog a rek ministre sport mais maire Thiar bi ki ki nu mu tudd euh, euh, Mamadou Touré moom moo tax ma xam ko dem naa ba Karam Thiès yendu fa ba ngoon jot booba nekkul maire ba mu nekk ministre kii ministre bu mu nekkoon avant lii kooku boo ko tuddee te yaakaar ne eh, da nga ut foo ko jege mais xam naa ko bu baax a baax ku baax laa ko Yankhoba Diattara maa ngi ko ñaanal bu baax a baax Matar Ba maa ngi ko ñaan bu baax a baax a baax maa ngi gërëm nag eh, di ñaanal suma bajan boo xam ne moo topp suma kaw papa mooy maire Juma Diouf ak rakam Alfort Manoven yal nañu yàlla xare arjana ak xemer ak ay doomam bu ma limee damay bàyyi kii bàyyi ñoom Waly Albert ñoom layti maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di su ma koñ maay gërëm ñoom Kumba ak tayoor yi nekk foofu ñoom Adama ak ñu Mamadou ak ñoom tonto Lamine maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di nuyu bu baax a baax Ablaye Diop yow mënu ma ko fàtte ndax kooku bu muy dugg ci man mbir bi dafa naqari woon mu ñëw jàppale ba si nekk tey yow su yow yow gis nga rek ni nga may defal am na yeneen journaliste boo gërëmee sax luñ ko teg man xam naa ki ku ci ne xam nga sa bopp am na ñoo xam ne dañ may woote bëgguma def ak ñoom dara parce que grim bi dañ koy def ut leen intéressé dugal ko sandi ko fale te yéen suñu nit yu baax lañ dañu jàppale nañ waxante dëgg dañuy jàppale bu baax a baax ñii nii bu nekk moom lambaa ñaaw da nga bëgg a fay location amoo kër Ndakaaru amoo amoo da ngay di di dugg fune di génne fu bu ñuy jàppale wu ne nooy nooy def kon mu métti te sax ñooñu sax dañoo xaaru nga ñaan leen da ngay toog rek ba di wolati ni ma ni sa papa Ablaye Ndour kooku rek bu mu wàccee ba léegi dégg nga mu ŋaang saa waaye am na ñoo xam ne wàcc nañ fii ñu ngi mbepp mbeppi te sa waay lu ñu doon ci dëkk bi ñoom la ñu nag man maa ko di yàq dara. boole xam-xamam. waaw. ak dalam lépp toog xam-xam yooyu tam nag kooku dafa weesu affaire xam-xam te sax man gëm naa ne président Macky Sall yëkk yëkk yëkk dina am lu mu ko jox lu du duuf lu baax parce que moom day def social yow xam nga li ma la wax mu baax a baax lu mu toogu kanam mooy loolu kon nag gërëm naa ñëpp sant ñaa ñëpp képp koo xam ne Angel Fall Mbayang Fall Mbayang Loum sama chéri boobu maa ngi paaf seen xuut gërëm naa ñëpp bu kat li nga ma may sant naa la gërëm naa la. di wax gars yi nañ jël avance bi nag. avance bi kay saa waay fu mu nekk bu taxawee ci mbedd bi rek ma ut naa ci benn ginaar bu nooy bu ñu roofee jinjeer. commencé nga invité nga invité ma. <laughs> yow bala invité kan lay invité <laughs> kontaan na ak sa waaj waaj na dem bëre ji moom itam nag moom moom. <laughs> tukulóor la tukulóor man damay yaakaar rek ma indi benn bor bu war a jël sama avance la tukulóor la tukulóor jaamu séeréer kontaan naa di nuyu sama jabar ji nga am bi nga am fekk fii muy Ami Sarr ndax gis nga ko moom aussi wax dëgg fa la fii laa nekk mais bu ma ko wooyee léegi gis nga taf taf sax daa fekkoon defaru néegam mu ne naa defar néegam di gërëm tuuti di gërëm faatu di gërëm sama jabaru mag yi ñoom ñoom ñoom Tening Fall di leen gën bu baax a baax ak ñoom ñëpp daal bu ma limee damay juum quoi sama rakk yi nekk Mbuur ñoom Samba mais kontaan naa waaye xoolal su ma yoon ci golo gu dem marché ah bu nduggee moo xam bu puudaroo moo xam on est là toujours pour tous Boucar dama war a boole gisoo ma njaqee Boucar yow da ngay fontu ma jóg taxaw nga xool ma xool ma yow xool ma fi mu nekk nii ma wax ba teg la sama affaire yi nga am problème tey xanaa lan ay ay affaire xool moom xool xool tuuti nag yow xam nga li ma wax ni damay raay tuuti mais combat laa bëgg lu ma perte ci bëri door bi dama ko bëgg wone mu tax bu dee mbapat yi sax comme père Ambroise lu ma waxoon. découragé bu ma bu ma doon jël bu ma gasto doon jël booba dama am coloré parce que ngor defa baax ma ne mënumaa jël avant ndax dama nekk équipe nationale. mu Ambroise Sarr père woo ma wax ma ne Adama ah, amatoo looy gagné ci bëri simple demal defi bëri dóor yàlla ak dogal jàmm la ma ca pertoon nag dama ko bëgg a jël. nii nii nii nii nii nii moo tax mbapat yi sax bëri du ma ci demati nii dama bëgg am ay combat ñi may wax ñi may wax nii sax bëgguma leen c'est que ma njëkk xam nga ñëkk pexe nag dégg teg pexe <laughs> ah ku te ah, mos tuuti moo gën ñàkk a mos mais lu ma gën a ñu indi ma koo xam ne kii nii ko soxor la ko mën a bëri la ma doog a dem ak moom ma gis ni may def ak moom affaire bi nga tiit. Ah, ginaar yee nooy ngay ginaar yee nooy de. ginaar yee nooy rek li ma la weer la de. billaay wala yow xam nga ne yow man champion la champion d'Afrique la dama mën a bëre nañ ma jox combat di gërëm nag waa Caare ñëpp ñoom Oumy Ndiaye ñoom ñëpp fàttewuma kenn daal. femme yi dama fa doon nekk sooy nekk ak ñoom. kontaan naa bu baax a baax Babacar mooy soveeru soveeru soveeru directeur COUD magasin ak ñoom Bouré nag suma doom bàyyi na le ak ñoom jaas ah maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax fàttewuma kenn di gërëm ñëpp nag fàttewuma kenn ku ma fàtte na xam ne yoruma micro nag. moo fi ñëwati yàlla nga fekk nga jël affaire. amiin amiin man kay bu ñëwee dama lay mosal sax. man maa ko wax ci télé bi yaa na nga mos a bi nag barke Rasulullah su bi ma joxe avance bu ma la orange ma la weefu ma la boo amee xaj nga tuddee ma ko maa la ko wax. nga jël ci Abdoulaye Diop nga mos. maa lay bëggee bu baax a baax a baax su ma xool sedd na billahi mais mbor yu tappalekat yi bu ma amoon ordre ci ci ci général Moussa Fall ak ak kii ma réglé leen quoi parce que dañoo indi ay tappale kontaan naa ma xool sedd këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak rege bi waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg dañuy daj duube na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi